tey bari ñoos du rek dafa commencé woon boole ñëpp mais xam na ne jigéen ñi ñoo gën a am impact si installation centrale à charbon bi ba tax na it lépp lu nga xamante ne mën na ko mu ngi koy def di remercier suñu <laughs> kii xam ne dama ko bëgg seetal appartement à Bargny ndax <laughs> ndax wax dëgg yàlla moom itam Ali loolu dañ la koy euh, seedal dañ ko dañ ko ko seedal sa kanam bu dee liggéey boo ko joxoon it mu ngi koy matale bu baax a baax a baax ndax day dem ba day mel ni moom miy jógee euh, mbuur moo ñuy gën a farlu si euh, taxawaay bi ñu war a taxaw te it boole ak andi ñu dolli ñu xelaat yu nga xamante ne daf ñuy jëmale kanam di nuyu aussi Seynabou c'est par la première fois ñu bokk mbir ndax itam kenn ku ne sala nga mën rek nga mën a wane sa bopp te gis nañu taxawaayam euh, si 2019 bi ni mu àndee woon ak famille di nuyu tam seen journaliste bi Jo Babacar donc ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ci tour ak sa santa ah di wax ni euh, pro euh, rapport bi ñu comme ni ko Abi waxee 2019 lañu ko def lancement bi à Abidjan donc biñu démé yitt it euh, wane nañ fa liñu xam té lolu yépp encadrement bu baax mo ñu ko indil ndax bu fekkente ne dem nañu fofu tey nit lu TV5 ñu tok amuñu ku ñuy déglu les femmes transformatrices. te amal nañu am na retour parce que bi ñu fa jógee la femme artisan yi nga xam ne dañ nekk euh, euh, Côte d'Ivoire ne comme ay femmes transformatrices jox nañu di xeex seen ak ak seen yelleef pourquoi pas ñoom ba si lañ fi ñëw defe naa def benn visite euh, d'échange pour xam fan la jigéen ñi commencé ba am résultat yi ñu am donc ñun peut-être ñoo xamul suñu bopp ñoo xeeb la ñu nekk mais macha allah au niveau national et au niveau international suñu taxawaay am na fa njariñ te lii tax mu am fa solo mooy dafa fekk ay jigéen yu xam seen bopp jigéen yu gëm seen bopp jigéen yu gëm ne li ñuy liggéey parce que développement local kenn mënu si génn jigéen donc jigéen ñi nga xam ne da ngay def projet sans consultation ñëw def projet ba pare ñëw bëgg kaa noot moom mu delluwaat këram toog ah, ah, àddina boobu dafa jeex li jot mooy ku xëy sa la nga moom bu la seen i fekkee wan ko ne fii maa ko moom te xalaat naa ne ak fi ñu jëm ak euh, projet yi surtout euh, liy bees di li ñu jàng si central bi mën nañu yóbbu si lu bëri donc daal ma di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla ñu commencé ko si bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko alhamdulilahi rabil alamin di nuyu euh, sargal jigéen ñi aussi parce que day jigéen ñi nga xamante ni amul heure boo leen di woo foofu sax léegi ñoom ñoo la gën a sax bëgg li nga nekk depuis 6 heures du matin ku nekk ay oote fan la ñu toll ban heure dem te loolu yëpp ku farlu si li nga nekk xalaat naa yàqeete donc yàlla na yàlla dool di jàmm dool lañu sutura ba fi ñu jëm ñu gën si am ay euh, bunt yu leer bu ñu mën kaa euh, bénéficier sonn aussi suñu si dañ sonn te heure bu nekk projet yaa ngi ñëw duñu te heure bu nekk comme ni ñu ko waxee rek nit waroo ko fekk si dëkkam jël léppam da war a am sax loo ko bàyyil au moins ñu ñaan yàlla nag li ñu fi tax ñëw fii muy rapport bi yal nañ si am ndam yal nañ yàlla may ndam di ziar tam ñaanal suñu ONG yi man maa ngi tudd Maimouna Fall nekk femme transformatrice à xel ko mbolo mi ma ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ñun ñoo leen amal njukkal ndax li ba mu démarré ba léegi sonn leen tàyyiwu leen yéen ngi ci suñu gannaaw rek di ñu accompagner man nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que xel comme gële métti na métti goo xam ne gii bu ñu amul woon ñu mel ni yéen ñun xamuñu nu ñuy def ak fu ñu jëm bon nag njukkal li lépp ñun ñoo ngi leen koy delloo nu yàlla jàppale maa ngi tudd Salmata Seck femme formatrice Xelcom maa ngi nii ku nekk si tur ak sa sant maa ngi tudd Ndeye Aïssatou Aziz Malick Ndour je travaille pour les Assalamualaikum. xarit bu bànni asalaamaaleykum man Sini di Transformator transformatrice xel suddi maa ngi gërëm yëpp di sant ñëpp di ñaanal yàlla aali yàlla fi yàgg te moo ko ñu muy liggéeyal ak di ñaanal abi chaque jour moom tayewul sonn chaque jour mu si yoonu baat mi naa dem ba ne dama yor doom mu wàññi beneen daal mais teel a gën a dëgëral teel a gën a may doole fu nekk ni moo ñu may fit fu ñu neex taxaw lu ñu neex wax lu ñu neex def parce que jàngal nañu lu bëri jo marante ñu ngi lay gërëm parce que lu mu jógee si formation ba léegi macha allah lu ma bëgg a dinaa ko def merci beaucoup salaamaaleykum maa leen di nuyu seen tur seen sant bu baax maa ngi tudd Astou Faye femme transformatrice de l'année waaw ñu ngi gërëm nag avant tout dañuy gërëm présidente ak ñuy jàppale Ali Abi ñoom ñëpp ñooñu jàppale ci combat bi ñooñu ci gën a farlu sax bien vrai que nous sommes des Bargnois mais ñoom amaana pas-pas bi ñu am ci liggéey bi ak dignité gi ñu ci am sax ñun ñii amuñu ko ci courage bu ñu ci am rek ñoom ñooñu ci gën a encouragé daal. pour ñu am ko ci ñu ngi leen di gërëm bu baax yàlla yokk seen taxawaay nag seen talent bu baax a baax merci salaamaaleykum maa ngi tudd tey Yacine Dieng femme transformatrice di gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalu àq ñëpp yaa nañu yàlla boole jéggal di gërëm àll bu baax ndax bu ñu ak abi ndax buñu amé courage buñu tok di wax té luñu wax kenn du ci tek baat ngoon grâce ak ñoom ñu ngi leen di gëreem di leen sant amuñu seen fay ya na leen yalla fay buñu ñëwé tay di ñëw fi di def formation pour saytu ben rapport biñu defoon ngon ma ngi ñaan sama ñaax sama bop di ñaax nyep, ku nekk déglu ko ak tek ak tay ngir en cas suba fuñu la mëna taxaw nga wax si loo xamante ne kenn du ko dindi di gërëm ñëpp di gërëm zoo sa liggéey rafet na yal na leen yàlla fay di gërëm ñëpp di sant ñëpp alhamdulilah. moom damay du ma def lu gërëm leen ci rek parce que xëy na du ci fànn bi ma nekk du nekkuma ci gënuma ci man waaw mais xëy na doyloo nañ au moins lu tuuti li ma mën doyloo nañ ko ba saa bu ñu amee lu mel nii woo ma mu ñëw bokk ko ak yéen yéen femme transformatrice tam maa ngi di nuyu di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay parce que même nekkuma ak yéen tout le temps mais de loin maa ngi suivre li ngeen di def xam naa ne ànd ngeen ci ak pasteur am ngeen ci ak ak ak ak farme donc maa ngi doon di leen encourager di ñaan yàlla nag ndaje bi ñu tàmbali tey nar koo def fii ba suba yàlla may ñu ñu dugg si ci bisimilahi rahmaani rahim te génn ci ak ci alhamdulilahi rabbil alamin mais lépp loo xamante ne mébét nañ ko fi yàlla may ñu ñu mottali ko ak suñu sàr donc euh, damay dem rek directement présenter leen agenda bi

pour mu mën a intéresser nañ ñi c'est pas que man rek damay taxaw rek di wax ngeen di déglu ay waxtaan la donc damay bëgg di expliquer ngeen aussi wax ni ngeen gisee seen gis-gis ñu partager comme ça mu gën a euh, vivant donc loolu mooy session bu njëkk bi bu ñu paree session boobu ba tënk ko euh, dina ñëw ci cadre d'évaluation d'impact écoféministe maanaam ku kuy évaluer projet ci critère boobu écoféminisme boobu euh, indicateur nga wara utiliser indi bu ma déggee mu ne indicateur moy ay nattuwaay la parce que boy boy nat dara il faut nga am nattuwaay mi ngi mel ni nga wara togb de dëw rek ñu né la euh, da ngay def dëwlin mais pour nat dëwlin bi il faut nga am est-ce que litre la est-ce que malade la est-ce que lan la si lan lan ngay utiliser pour nat même chose que ni dañuy am ay indicateur pour xool euh, bu ñu né écoféminisme buñ ko ay càmbar ci projet. yan nattuwaay la ñuy xool ci projet bi ba xam ne euh, fii ku ko xool di nga gis ndax jël nañ ci dugal nañ ci écoféminisme wala dugal nañu ko euh, cadre boobu dafa nekk euh, ñeenti indicateur donc indicateur yooyu yëpp nattuwaay yooyu ñeenti nattuwaay yooyu yëpp moom la ñu nar def tey fii ba ngoon donc dinaa dellusiwaat ci indicateur yi benn par benn Euh, bu ñu paree ci indicateur bi nag ñu ci ba suba ñu dellu si bu ñu xëy see suba nag ñu jéem a tënk rek li ñu fi def tey muy rapport journée bi euh, après dem ci conclusion ak recommandation rapport bi parce que ku càmbar ba pare di nga xool sa càmbar bi lool ci jëlee ak lan ngay dénk ñi nga xamante ne ñoo la sant liggéey bi ñi nga xamante ne liggéey bi ñoom lañ ko jagle ak éventuellement

Euh, li ñu capitaliser ci xeexu centrale bi li ñu capitaliser ci rapport bi naka la ñu mën a amalee njariñ bu ëllëgee naka lañ ko mën a utiliser pour xeex yu ni mel ba nga xamante ne euh, projet beneen bu fi nar a taxaw dina jël bàyyi xel lii nga xamante ne moom amay àq ak yelleefu jigéen donc loolu euh, li nga xamante ne daal moom la ñu nas pour dérouler ko pour ñaari fan yi Euh, bu fekkente ne am ngeen ci observation am na kenn ku ci bëgg a yokk dara wala ku xalaat euh, beneen def proposition ñu partagé ko avant ñuy kon ñuy ñuy tàmbali waxtaan bi loolu bu fekkente ne ñuy euh, convenir na leen ñu continuer mën nañu continuer voilà donc dañuy commencer juste ci bu njëkk bi mooy écoféminisme féminisme xam naa ne comme rapport bi yéen a ko defandoo ak consultant bi certainement war ngeen a xam lan mooy écoféminisme wala xam ngeen luy écoféminisme wax naa leen du may may def séminaire bi de seen séminaire la ba nag ñëw rek pour faciliter <laughs> ah xam ngeen luy écoféminisme lu mu wund ci ginnaaw. waaw léegi nag di ngeen ma baal parce que naa naa ko may mën a waaw dëkk naa ne mhm. mooy par exemple jigéen mhm. ji mën nañ ko wax ne mbootaayu jigéen ak li mu und ak li mu ëmb mhm. moom lañ naan écoféministe par exemple jigéen am na foo xamante ne fii jigéen moo yore kër ga jigéen moo yore éducation jigéen mooy jur mm-hmm. te en même temps day liggéey mm-hmm. di andi ci biir société mm-hmm. loolu moo tax mbooloo moom ñu boola nag ëmb lépp moo tax ñu naan jigéen écoféministe la si sama xalaat bu gàtt mbootaayu jigéen ñi nga xamante ne dañuy xeex si xamante ni ñoom daal mbootaay goo xam ñoo bokk benn jiwa mel nag mbootaayu jigéen beeg di xeex benn benn combat daal bokk <laughs> ak kan ak kan moo ci amaat beneen xalaat soxna Fatou Seynabou ñun de li ñu xaw a jàng tuuti ci écoféminisme mooy mhm. yàlla dafa def jigéen li mu ëmb dafa bari mhm. donc ak lepp lo wara a nek rek jigen war na mën am axam ak fam si prise de décision si gestion si euh, jàppalante si jot sa euh, sa sa pour yokk taxawaay euh, manam bu jigen taxawé xalaat naa ne pàcc yëpp mën na fa tek lo xam donc muy si walu économie si walu social ak lepp daal lo xamantene ne dafa ëmb jigen xalaat na ne taxawaay boobu mooy écoféminisme voilà donc ni ngeen ko waxee noonu la en fait não não koy dégg da ngay am ñaari baat ci biir ci biir baat bi éco ak féminisme éco boo xamante ne maanaam day ramawaay ci écologie lépp loo xamante ne mi ngi ci àllam di ay gàncax ak yooyu ak féminisme xam ngeen ko maanaam wàllu jigéen lu tax ñu boole ñaar yooyu parce que dañoo dañoo euh, lu tax lu tax ñu boole ko maanaam ci ci jàngat ñi di réfléchir dañu xool

ba nga xamante ne jigéen ñi vraiment li wax ngeen ko sax li ñu ëmb dafa bari seen taxawaay ci société bi dafa am njëriñ te terewul ñu ngi ko fu ñu toll rek ñu ngi koy noot fu ñu toll ñu koy teg lu metti léegi nag bu ñu méngalee lool ñu ne donc comme xam nañ ne jigéen am na solo ci biir euh, société bi lépp lu ñuy nas

parce que lan ngeen seetlu ci ci ci relation góor ak jigéen suñu société bi lan ngeen ci seetlu nag lan moo ciy taxawaayu jigéen ñu waxtaan ak ci waaw soxna. waaw boo waxee relation góor ak jigéen. Mhm. toujours day mel ni góor moo dominé ku euh, jigéen. Mhm. Euh, góor la mën a demee noonu daal. Mhm. parce que kenn ku ne ak ses responsabilités kenn ku ne ak li mu mën mais kenn ku ne aussi ak li nga xamante ne supériorité am ay domaine waaw waaye soxna Ndeye boobu dafa bari suñu si daanaka suñu Sénégal gi ndax jigéen amul benn euh, par rapport ak jigéen daal toujours góor gi mooy chef bi mhm. te jamono ju ñu toll loolu dañ ko war a daax te ñun ñoo ko war a xeex mooy li ñu war a jàng te di école féministe bi nu góor ak jigéen ñoom ñépp ñoo war a yem du ne rek euh, góor gi mooy supérieur toujours ba ba ba kara àddinay tukki déedéet góor dafa war a def jigéen def prise de décision yi fu ñu koy jële góor ak jigéen ku si nekk am sa loo sa sa sa apport sa am sa xalaat ak keneen ku ci am droit loolu ci yokk loolu ñu waxaat rek parce que actuellement au ne jigéen ñi góor ñi ñooy tamit toog ñooy ñooy ñooy kilifa yi dëgg la dañuy nangu responsable nekk kilifa mais lu góor mën a def jigéen di ci que góor bu andee bon nag fi góor mën a yegg aussi jigéen ko mën yegg waruñu mën jigéen ba muy si kaw parce que poste yi boo demoon tey jii fi góor nekk rek ñii la te li ko ñii

société programme bu ñuy nas muy programme de développement dinañu a mën a analyser bu baax lan moo taxawal ak jigéen lan mooy àqam lan mooy yelle ko mun ko dugalaale ci programme bi ñuy nas dinañ mën aussi bu ñuy dérouler programme bi ñuy bàyyi xel tout le temps place jigéen ci biir euh, kii bi parce que comme ni ngeen ko waxee

te li muy wuti yëpp di indi lu ci bari ci euh, nature bi la koy jël ci ressources naturelles yi la koy jël jën yi foo même koy ci géej gi matt mi fu muy joge ci àll bi ndox mi naka noonu donc ça veut dire que nature boobu ressources naturelles yooyu bu ñu amee jafe-jafe automatiquement jigéen yi dañ koy yëg jën bu amatule <laughs> mënuma xalaat sax yéen seen nekkin <laughs> dina doy waar waaw bu ñu xëyoon rek ñu ne tey géej gi dafa war lu ñu koy waxee sax dafa kaay. ah journée boobu dina metti trop ci yéen waaw donc loolu bokk na ci li nga xamante ne constat yi waral euh, écoféminisme jóg donc bu fekkente ne nangu nañ ne. Euh, jigéen dafa dépendre ci ressources naturelles yi que ressources yi bu amee problème jigéen day am problème jigéen lu muy amee problème gis nañ ko sànq bu doon matt mi la dangay dem ci àll bi nga gis ne tey nit ñi balaa ñoo taal añ dinañu dox sore sore sore pour wuti matt ñenn ñi sax matt amatul fa ñu dëkk gis nga ñenn ñi dañuy dem wuti euh, ndox man maa ngi fàttaliku bi ma nekkee xale bu ñu demaan ca teen ba rooti dañuy def lu ñuy wax nasal nasal xam naa sax nit ñi xamatuñu duñu nasal est-ce <laughs> que est-ce que ñu bëri fii xam nañu luy nasal. ami <laughs> ah, xam nga luy nasal. teen bi ndox amu fa ngeen toog di waxtaan di xaar ndox bi ndox bi ngeen di yéegaat pour ngeen mën a root donc temps bi nga doon am pour dem root rek ñibbi si waat day temps yooyu day gën a yokku voilà donc gis impact bi euh, pression bi ni ñi di def ci na naturelle bi que jigéen ñi lay njëkk a impacté balaa moo laal ñu parce que ñoom bu ñu ñëwee ci kër gi dinañ fekk ndox pour sangu de laajal aali <laughs> xam naa ne coono bu aji daj pour ndox nekk ci kër gi moom xamu ko wax la fu mu jaar ba indi ndox ci kër gi xam ko

nous ne donc pour double jël en compte perspective écoféministe yooyu il faut donc ñu jël en compte yi may bëggale moi il faut ñuy identifier intérêt nit ñi ci biir société bu ma section spécifique donc vous rek que jigéen ñi kese góor ñi mais pourquoi tout le temps ñuy bàyyi xel ci jigéen ñi parce que góor ñi moom mën c'est le seeni seeni problème mm-hmm. <laughs> Donc, jamais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Donc, il faut nous essayer tout le temps de voir l'intérêt de euh, cette société, de l'homme et Pour prévoir, pour nous anticiper l'impact de l'homme et de l'homme pour nous accueillir. Parce que, c'est ce que nous le dit. il faut ñu bu ñu mun ko xam jàngat ko ba xam ko mun cee anticiper donc euh, outil planification yi processo de de planification yi élaboration projet yi dinañu mën a engagé wu noonu donc processus bi approche bi dina mën a mettre en évidence impact yi que ni ma ko que ci ka environnement bi yi nga xamante ne jigéen ñi lay njëkk a affecté et enfin dina mën jël lii ma wax fii yépp mën koo. boole ci logique d'intervention projet c'est surtout projet yi mag a qui yooyu un xamante ne impact si jigéen donc voilà concept pour commencer pour introduire lan mooy écoféminisme hmm? d'accord À mon hmm. question voilà mais continuer ñu discuter ci Ça waaw dafa di sàmm ñu que le système patriarcal Voilà. système patriarcal bi ñu ko euh, xaw nañ ñu si flash jàngal ñu ko mhm. dañ nañu système patriarcal mhm. dafa nekk loo xamante ni mbooloom góor la ñu am doole mhm. am xaalis ñëw na ñoom léegi dañ bëgg daaneel jigéen ñi jigéen ñi waruñu mën comme par exemple bu ñëw ni fekk góor ñi bu ñëw fekk jigéen ñi toog dañu war a wàcc jigéen ñi góor ñi toog ci kaw ñun leen système boobu nag duñ ko nangu duñ jigéen duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg <laughs> waa xam nga loolu laa bëggoon nga kii dëgg la xam nga système partenariat comme ni nga ko waxee. suñu société. moom la ñu mooñaale noonu. Mm-hmm. waaw maanaam bu dee ñuy wax patriarche. Mm-hmm. bu ñëwee ci kër gi borom kër. Mm-hmm. tout góor. boo boo boo nee ana borom kër gi rek. waaw boo laajoo ku góor ko. xam nga laajoo ku jigéen ci pardon ku góor ko ngay waxal. voilà loolu mooy système patriarcal. mooy système boo xamante ne dafa jël góor def ko ci kaw. comme ni nga ko waxee. def ak jigéen ci suuf. décision yi ñuy jël baat bi daal góor góor a leer waaw léegi nag lu metti yi lii yëpp nag ci baykat yi ñu bàyyikat yi loolu mooy système patriarcat maanaam daal baat kii kii joxe ndigal waaw mooy ku góor ki kii topp ba bañ nañ ko ba bu ñuy muur ñuy sëy sax pour la ñuy am boo demee na nga topp ndigal na nga <laughs> na nga na nga na nga nangu ah. na mel ni daal la xam nga loolu loolu mooy suñu société loolu la ñu moo ñaar mais nag boo demee àdduna dafay dox bu àdduna di dox da dox ànd ak parce que bu njëkk ba ñun suñu yaay daaw ñu xëy gàddu sax dem liggéey ñu ngi woon ci kër gi yore njaboot gi góor ñi dañoo daan wuti mais jamono metti na soppeeku na ba nga xamante ne kër benn loxo mën a du il faut jigéen ñi tax donc il faut aussi lu diis loolu ñu tegoon seen kaw yëpp ñu mën koo wàññi ko wala boog parce que Seynabou par exemple fii sax léegi mu fi xaw a wàññeeku ndax jigéen day liggéey góor di liggéey mais par exemple bu dee si biir région yi surtout góor bu demee ba am cinquante cinquante cinq presque soixante ans place am mooy salaire ba jigéen ji nag moom du retraité xanaa mu dee mooy retraité am ndax mooy dem bu góor gi mënatul góor gi moom même bu fekkee daf doon liggéey fu bu retraité rek moom amatul am pexe léegi li des jigéen ji mooy yeggali mooy li jënd ji ay xaalis pour mën a yor njabootam mooy taxaw si éducation bi pour mën a yor njabootam mooy dem di seeti comme ni nga wax sànq ndox mooy bay mooy def lépp donc loolu peut-être si biir ville yi mu ngi fi xaw a changé mais boo xoolee si biir dëkk bi presque loolu ba tey daf fay reñ mais dafa war a jeex nag <laughs> PAK boobu mu wax. daanaka bu ñu si amee ndam si grâce à règne ab Abdoulaye Wade mm-hmm. si la ak xaw a andi parité lu bari jigéen am fit di ko def mais bu njëkkoon dans les pays yooyu boo demee jigéen mooy liggéey pare mm-hmm. ñëw na sa borom kër om di kii liggéey ba ñëw yow yaa ko war a wax kay am du mbaara góor gi mooy jóg jigéen ji liggéey ba ñëw naka am di mbaara mais itam vraiment système bi moom dafa war a jeex te day jeex sax avec génération bi waaw day jeex waay ah ñun ñun indiwuñu boo xamante ne jigéen ñi dañuy ñëw contre góor ñi

amul bu ko góor yi mun nañ xeex seen seen mun nañ xeexal seen bopp euh, bu ñuy dem ñoom mën nañ dem mais foofu jigéen mun na xeex de mais lu muy bàyyi xel mooy bëri parce que góor bu nee bëreet sabadooram lay jël bokk saagam daw jigéen bi dina dem ba ci yàgg mu ne i sama doom yi daw lijjanti leen ah yaay ji daw lijjanti ko xaaral ma jël ñaari yére xaaral ma ah ndox du am li muy calculer mooy bëri ko ba du mun a def yenn yi kooku donc kooku dañ koy war di bàyyi xel alors que góor c'est pas son problème moom su affaire taree rek mu almet alors que jigéen du mun a dem bàyyi loolu yëpp ginnaaw loolu mooy suñu différence mais lu ñu mën nañ xam ne ñun mën nañ lu ko raw mais suñu souci moo bëri par rapport ak ñoom. bar ñaam nga mosoon nañ fa am na benn balu kënu mais am na jaboot ju nga xamante ni dafa tiit war jël doomam cin la gàddu la jël boot ko bàyyi doomam daw bi mu demee ba sore la xam ne cin la woon mu wëññeeku waat ñëw pour lijjanti doomam te jombul ana góor ña boobu góor ko moom yoonam li nga wax jël na caaya mbaa mu jël forogam dem yoonam bàyyi leen fa

xam rôle rôle bi ñuy joué ci société bi donc di rafetlu daal ndaje bi di xaar résultat yi au à la fin pour ñu dem appliquer ko dupliquer ko sur la communauté entière de Bargny. si li nga wax lay ñëw waaw li mu ne dañuy xelaat doom yi ak am waa port ñun baykat yi mais bi góor ñi attaqué ñun jigéen duñ ñu attaqué mais da saa saasaan nga jékki gis xale bu góor bu daw mhm. bi ñu sànnee recommandé góor bu daw bu fële nga gis jigéen bu taxaw xam ne lu góor man jigéen man na ko ñu taxaw xeex ah police yi mhm. mais saa nga gis góor goo xamante naan ko jigéen ki dawal parce que man damay daw ndax bu recommandé jógee damay damay daw kon bon lu góor man jigéen man foofu laa doon bëgg bi ak wax dëggal foofu moom maa ngi dëggal moom ñun femme transformatrice yi mm-hmm. ñun moom ngeen yéen góor ñi ngeen baal ñu tam si kàddu bi mais ñun femme transformatrice yi ñun moom lu ñu man bu fa dëgg yàlla suñu góor mënuñu ware mm-hmm. ñun moom macha allah moom waaw moom bu dee côté boobu rek moom ñun ñoo battre góor yi place góor yi moom ñun ñoo ko yor problème bi Adja mooy suñu milieu bi ñu nekk bi ñu évoluer day difficile pour nga appliquer loi boobu ndax boo na nii boo waxee sa sa boroom kër wax nga wax sax ñu ne noonu waruloo wax danga war a noppi problème am fële góor wax nga xam ne góor gi li mu wax du euh, noonu nga war a jël say mesure wax ñu ne amuloo kilifa mais nous sommes dans quel monde monde boobu dafa war a jeex ngeen baal ma de Ali mais dama ne wax say wax jël say droit wax li nga war a wax si ah ni nga ko war a waxee am naa yaakaar ne de loolu yaaxul dara mais nag système bi ak nu mu mën a te mën a nekk dinu ko appliquer à la lettre mais d'une manière noble daal ndax boo yëngalee bu baax ñu ne digloo li sa li sa lislaam wax lislaam dana nangam mais c'est dommage daal. dañoo kese kese kese. que boo lislaam a yëkkati ci moo gën a cëral ci kenn kay waaye nag malheureusement comme ñun tamit def góorgóorlu ñu ko dem jàngi ñoom ni ñu jàngee comme boobu ku tari aaya ñu tari aaya <laughs> dañuy nax rek jël li leen arrangé rek mais yàlla nee na yàlla nee na mais yàlla nee na devoiru jigéen ñi rek la ñuy wax mais du ñu wax devoiru góor ñi rek mais pourtant charge société charge kër yàlla góor la ko war doon kuy jël sant baayam pour commencer donc sant baayam lay jël donc ça veut dire que loolu ñu jox cër boobu ñu jox góor mooy war yore kër jigéen ci bu ko neexee lu mu ciy def noonu yëpp ci bu ko neexee la mais léegi comme xam nañ ne comme ni ma ko waxee léegi jamono moo mel am moo tax rek xam nga jigéen xolam dafa oyof mënul seetaan yenn yi yow mënoo xool sa doom di xiif mu wóor na leen ne lii mën naa faj nga tëdd nga tëdd jigéen mënul lool wala nga sol sa yére daw génn ko nga bàyyi leen il faut que lijjanti rek moo sama jigéen seen xol moo rafet seen xol ooyof <laughs> donc après ñoom ñu ci profité nag